asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokk yëpp di sofale suñu nuyoo ci nuyoo sëriñ Cheikh Anta mi jël kàddu gi léegi mooy ñu ngi jiital ci nuyoo bi kilifa ak jotaay bi soxna barakatu Bousso bintu soxna moomi ak njabootu soxna moomi gi yëpp rek xam naa ngir njëkkante waxtu wi rek kilifa yu tedd yi ñu toogal sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu soxna Bali mu soxna Maymuna bintu Seexul Xadim ak sëriñ Abdou Lahad Jaxate ak kilifa yi fi teew yëpp sëriñ Moor Mbakke ak kilifa yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu cay jéggulu ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci seen kanam xam naa dañ ne woon rek ab tënk bu gàtt rek la ñuy joxe ci soxna Moominatu bintu Seexul Xadim soxna moom ni ko sëriñ Seex Anta waxee sëñ bu mag bi annoncé na ak ñëwam lu jiitu muy ñëw ci jamono yaakaar naa loolu ñun ñëpp dégg nañ sëñ Abdou Samad Soxna bu wax te moom it ku jaxasoo woon ak soxna si la ndax ca kër Serigne Soxna bu la nekkoon ca soxna si wax nañ ne bokkoon na ci ñim gënoon a jaxasool ci njabootu sëriñ Touba gi Serigne Soxna bu Mbàkke amoon na fa cër ak wàccuwaay bu baax a baax a baax soxna moom yi bokk na ci njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñu ngi ganee jamono njaareem. njaareem la ganee jamono waajuram mu jigéen soxna Fat Sylla Libaas mi ngi bokk ci waa kër sëñ Libaas la ca ñaxal ca mbaakol ñooñu doonoon askanu alxuraan ñun miinoon ci alxuraan ñu bari ci njabootu sëriñ bu mag bi seeni waajuru jigéen foofu ca mbaakol la bàyyi ko ci atum 1914 la gane jamono ci njaareem wax nañ ne turam bi nga xam ne mooy mu minatu comme niñ baaxoo xamee sëñ bu mag bi lu bari ci njaboot gi soxna yi ay melo la leen doon jox yoo xam ne nii melo yu kawe lay doon wax nañ ne melo yooyu yëpp nag daa dajewaat ci waajuram bu tedd wi muy Sayyidatuna Mariama soxna Jaara so soxna moom mi nag turam yi mooy aji gëm ju jigéen ji ku gëm yàlla ki gëm yàlla nag martaba bu kawe la boo xam ne nii ñuy jàng xam-xamu tawxiid dañuy faral di wax naan ab jullit yomb na waaye aji gëm jafe na dañuy wax naan ku ne ab jullit la rek ku wax ñaari baati seere yi ab jullit la mënatuñ ci dara waaye bala ñu ko wax aji gëm nga day wax ñaari baati seere yi booleeg di jëfe li yàlla sant aw turam mooy aji aji gëm ji yàlla mooy aw turam muy na te yaakaar naa mosuñoo gis ci histoire xeeti turi yi nga xam ne moom la doon tuddee njabootam gu tedd gii donte turi arab la sax xamee su ko ci arab yi ak li muy arab yi arab yi yëpp muy yu góor yi ak yu jigéen euh, mën naa ci joxe misaal rek maa ngi fàttaliku bi biñ nekkee fële ci réew ma Maroc di jàng am kuñ bokkaloon classe koo xam ne Abdul Ahad la tuddoon waaye saa yu rappel ba ci Abdul Ahad yi suñu professeur bi ñu doon jàngal da doon yéemu ci tur yi fu mu bàyyi ko maanaam daal moom arab la ca ahad moom ñëpp xam nañ ne ahad la ñoom liñ baaxoo xam mooy Abdul Wahid ñoom naar yi abdul waaxid ca ahad moo gën a kawe waaxid ndax nee nañ boo nee ahad sañoo tegaat sañoo caa tegaat isnayni wala salaas ahad moom kenn la rek doo ci tegaat dara te boo nee waaxit ñi ngi diglu nga waxaat isnayni salaasa arbaa nee na muy yéemu naan tur wi yéen fu ngeen ko jëlee tur daal fu mu bàyyi ko ba àgg sax ba ci ne su ma amaatee doom xam ma fu ngeen jëlee turi waaye abdul ahad laa koy tuddi ndax tur wi neex na ma te loolu kenn la woon rek ci njabootu Serigne Touba gi koo xam ne nii ci tur wi mu yoroon ci njabaru Sëñ Tuubaa gi la goo xam ne ñoo bokkoon classe di jàng fële ca Maroc loolu misaal la rek waaye ñoom ñëpp noonu lañ mel soxna Moominatu bim ganee jamono ci njaareem wax nañ ne euh, sëriñ Mor Alima géy moo ko njëkk a jàngal alxuraan waaye ci diir bu gàtt ku tedd kii jox ko jàngalekatu alxuraan bu mag bi nga xam ne li ëpp ci njabootu sëriñ Tuubaa gi moo leen doon jàngal alxuraan koo xam ne moom sëñ bi da koo féetale woon alxuraan muy sëñ Ndaam Abdourahmane Lo wax nañ ne moo ko jàngal alxuraan ba mu wattu ko bind ay kaamil yu baree baree baree bari lu jëm ci njàngum xam-xamam xam-xamam comme sëñ bi ni mu doon doxale rek muy lenn ci njaboot gi ñii mu sant leen ñuy jàngale alxuraan kese duñ ko booleeg dara lenn ci njaboot gi mu sant leen ñuy jàngale xam-xam rek duñ ko booleeg dara bi noppee ci njàngum alxuraanam sëñ bi mi ngi ko jox rakkam jooju nga xam ne mooy ki sës ci moom di loxo ndeyjooram di léppam di maam Thierno Ibra Faty jàngal na ko xam-xam waaye sëriñ bu Bousso jàngal na ko xam-xam sëriñ Fallou mi nga xam ne ci doomi sëñ Touba yu mag yi la bokk wax nañ ne njabootam gu ndaw gi ñu ci bari ñi nga xam ne fekkewuñ lu bari sëñ Touba sëñ Mourou Moustapha ni mu leen doon taxaw ak sëñ Fallou dañoo mujjoon sax jàpp ne mooy seen waajur ngir taxawaayu bi nga xam ne moom la doon doon taxaw ñoom njaboot googu Cheikh Mahamadul Fadal jàngal na ko xam-xam moom soxna Moominatu yaakaar naa boo ñëwee ci kër gi ci gëstu danañ la wax walla ñu wan la ay taalif yu bari yoo xam ne moo ko bind yii ci làkku wolof la ko bind yii ci làkkum arab la ko bind waxuma lay taalif sax waaye lenn ci ay leetar yoo xam ne da ko doon bindanteeg njabootu Serigne Touba gi waaye ci langue arab la ko doon bind loolu rek doy na sëkk ci euh, ak tegtalam ci wàllu xam-xam aw meloon nag wax nañ ne bokk na ci njabootu sëriñ tubaa gi nga xam ne ñoo gënoon a sëñ bi jëmm loolu soxna Aminatu Amar saxal na ko moom mi nga xam ne gis na soxna moom mi gis na Serigne Touba te wax nañ ne sax sëñ bi yoroon na ko mooy waajuru sëñ Moustapha Massamba nee na soxna si bokk na ci ñi gënoon a nuróog sëñ Touba jëmm loolu ñun ñii fekkewut lu bari ci soxna moom cay gis internet bi ak photo yi boo xoolee jëmmi soxna si ak jëmmi sëñ mag bi seen kanam yi gi moom da yéem bokkoon na ci ñi gënoon a nuróog euh, sëriñ bu mag bi ci njaboot gi. aw meloom nag ku bari woon fulla la lool am caractère nag fees dell ak yërmande lewet lool ca loolu lu jafe la ci doomu aadama maanaam ñaari ku bari fulla day naqare deret kenn du ko ñeme waaye fulla ju bari ji ak caractère bi yërmande jegi lewet ji foo ko takk weesu na ko kër gii mu nekkoon nga xam ne dafa feesoon dell ak njaboot lu bari ci njabootu Serigne Touba gi ko tuddi woon i doom wala ñi nga xam ne tuddi wuñ koy doom fii lañ leen joxe woon doy na sëkk rek firnde ci soxna si muy kër gi boo fi ñëwoon ci jamonoom ba ci tey sax jeexit yooyu da ko fay gis muy ñaar yii wala ñett yi moo fi gënoon a fés ci kër gi muy jàkka ji daaree alxuraan ji ak waañ soxna yi loolu lañ doon bàggante muy jàkka ji ak daaree alxuraan ji ak waañu mag wi nga xam ne moom la yore woon nga xam ne waañ wi mboolem njabootu Serigne Touba gi daana defar ay xéewal di leen ko yët ay barkeelu daana ko jox ci daaree alxuraan daana ko jox way néew doole yi waaye it loolu taxutoon it mu bàyyi bàyyile ko soxna si kuraa fàggulu lew la sëñ mag bi daa wax ne fàggulu lew farata la ci jëmm faratay jëmm la ci bépp jullit ku daa fàggulu lew la daana defar ay liggéey yoo xam ne nii da ci daa xeeñtu lenn ci wërsëgu lew wu ciy dugg wu ciy génne mu di ko defaat ci biir liggéeyu sëñ Tuubaa bi muy lu mel ni ay sëri ñaw yooyu nga xam ne daana ko def ak yeneen ak yeneen ak ne yeneen yu mel noonu nga xam ne daana génne lenn ci ak wërsëgu lew woo xam ne daa jëmaat ci biir njabootu sëriñ Tuubaa gi ku bari woon baatin la lool feesoon dell ak i karaama nag sëriñ Sidi Moxtaar Kam mi nga xam ne fii la yaroo ci kër gi nee na mas naa siyaare ji soxna Moominatu ca Daaru Moxti ndax soxna si sëñ Mbàkke Buso moo ko njëkkoon yor ginnaawam lañ ko jox sëriñ Mudu Awa Balla mi nga xam ne mooy xalifa bu njëkk maam Ceerno Birahim sëriñ Sidi Moxtaar Ka nee na bi mu demee di ko seeti ca Daaru bi ko soxna si séenee rek dane ko andil ma téere bale nee na bi mu indee téere bi mu am ko am benn masala boo xam ne da ko caawan ca téere ba ca sëñ Sidi Moxtaar Ka nee moom li koy masala boobu mu ko wan moom la fi doon moom la fi doon laaj si wala moom mooy moo nekkoon yitteem ji ko indi woon daaru mooti ca jottoon a wax ak soxna moomi loolu karaama la waaye mën nañ cee jàngate ak xëram ci xam-xam aku xóotam aku yaatalam ci xam-xam te karaama sëñ mag bi nee na day tegtale karaama yi wàllu yi day tegtale seenug sitqul seen seenug seenug dëggug wilaaya loolu lay wane donte ñoom sox loolu du dara ci ñoom ñoom gisuñu ko ñoom jàpp nañ ne karaama dëgg mooy al istixaama mooy tegu ci njub tegu ci yoonu siraatal mustaqim ñoom loolu lañ doon gisoon ne mooy seen karaam waaye yii moom yàlla moo ko doon wane ngir di dalal xel ñi nga xam ne ñoo ko waroon ak ñi nga xam ne ñoo ko xamoon am na ci benn boo xam ne sëñ Cheikh dënde Dende mii moom ma ko nettali léegi di sëtub soxna Moominatu soxna si daa yónni woon ay njaboot ci kër gi sëriñ Xaadim Ka ci la bokkoon ak lenn ci njaboot ci kër gi yónni leen Cees nee nañ bi ñu demee ba nga xam ne war naa mat lu mat fanweeri minute mu am keneen ku mu ci biir kër gi ne ko demal nga dabali ma ñooña dama leen a soxla te ba mu leen yónnee booba dem nañ ca war naa mat fanweeri minute nee na bi mu génnee fekk leen ñu paan ñoom kon day mel ne loolu baatin dëgg la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sax comme ñoom gisuñu woon ne loolu mooy karaama dëgg-dëgg karaama dëgg mooy al istiqaama mooy li ñu nekkoon ñoom tegu ci yoonu siraatal mustaqim ca loolu la meloon moom moom soxna Mominatou nekkoon koo xam ne ku gëm yàlla la ku ragal yàlla lool ku mënoon a dimbile ca manoon a dimbileem dëgg dëgg dëgg ki ko doon xam mooy ki nga xam ne da koy defal ba noppi ca du ko waxaat nee nañ bokkoon na ci li nga xam ne da ko doon seene lool mooy mu dimbile la ba noppi nga di ko waxaat day bëgg daal lim da defal mu yem ci seen diggante aw dàllam it fu mu ko solee di dox guddi wala bëccëg day defar mbokk bokkoon na ci li nga xam ne moom munu ko woon a munu ko woon a toogaale daal mooy ñu ne mu ne diw ak diw dañu am xaaj euh, xaar ma yàlla diw ak diw ci njaboot gi seen diggante dafa ñagas moom moo daa doxal boppam ba ca diw moom mu wax ak moom doxalaat boppam ba ca diw moom doonoon koo xam ne ku amoon xëyba la ndax ragal yàlla day def ay jeexit ci kanamu nit day def ay jeexit ci meloom day def ay jeexit ci waxam soxna si yàlla da ko mayoon xëyba ba koo xam ne nii foo ko gisee rek da xam ne kii dara mi ngi ci moom doonoon koo xam ne na nga doon jàngee ci soxna asawaalo ci meloom ci colam ci comportement noonu la demee mooy nam daa soloo ci xeeti sol yoo xam ne njabootu Sëñ Tuubaa gi suñ borom da leen a baaxewaat leneen mooy biñ ñëwee ci jamono ñoom am na xeeti sol yu baree baree bari yu yiw yoo xam ne ci góor ñi dañu baal ci kàddu gi ak ci soxna yi ñoom ñoo ko keree seen jamono bàyyi laat kenn xamu ko ci àdduna bi furut fii bàyyi soxna bu kenn xamu ko ci àdduna furut fii noonu it la soxna yi amee woon seen xeeti col yoo xam ne xañ na soxna yi ñoo ko ñemeegut waaye soxna moom mi boo xoolee photo mi doo xam ab baylaat la wala bay son bi la dara ju rëy lay doon yoo xam ne day am ay poche ca kanam yoo xam ne boo xoolaatee danga nga gisaat yeneen couleur yu ca teguwaat yeneen couleur yu ca teguwaat mu leer na la kii ay yére yu baree bari la tegal ca du ca yem ak tàngoor yi nga xam ne jamono jooju clim yi ak ventilateur yi amutoon mu jël rabal bu rëy rëy muuroo ko ci yaram yëpp loolu yaakaar naa ci ñenn rek lañ ko xamewoon ci histoire muy ummuhaatul muminina mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy dàkkantele nday way gëm ñi ñu nekkoon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabootu sëñ Tuubaa gi noon lañ doon solo noonu lañ meloon ñooñu lañ tegoon bët weesu woon nañ ñetti jamono yi yëpp ñiñ daa xool mooy seen maam soxna jaariyatullaahi soxna maam asawaalo ak seeni nday yooyu nga xam ne ñooy nday jullit yi muy ummahatul muminina yi daanaka koo ci wax rek tey soxna moomi nii ñu waxee soxna moomi ñu doon wax soxna may mun a nii la ñuy waxe moo xam kubra la ñuy wax wala soxna may suxra doon wax ci soxna muslimatu nii la ñuy waxe loolu lépp nag ni mu meloon ci ñoom soxna yi noonu la meloon ci góor ñi melo yooyu yëpp nag moo dajewaatoon ci ko baax ki muy Serigne Touba loolu lépp kiimaan gi day delluwaat ci seen waajur bu baax mooy Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim kon Serigne Cheikh Anta ci gàttal daal lii mooy euh, soxna moom yi xam naa lu ci dëng wala lu ci gàtt rek suñu gàtt xam-xam la ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.